donc vraiment ku ci am sa waajur mo dund rek dang ci profité jamu ci yalla teral ko loo mën. am amul mo wagne ko

mama mama